inspecteur Ngom jël ko non demal sa bureau sax demal sa bureau nga bay ko fi ki demagul yow dinaa lijjanti say affaire man du ma fal sàcc aja. nga sa doom sàcc la da ngay acca gaawal ak fay aja ayo sama ci biti génnal aywa lañ dem ci biti gaaw leen gaaw leen dem gaaw leen ci biti ñu lañ dem ay doomu sàcc ak doomu cagare ngay jur ci biti aywa man kenn musuma yab te kenn duma yab dah yen, kenn duma yap jalur xool su ngeen demee man ma am jàmm ñu bon ñi ngeen doon li may rëcc ci yow mooy bi bon ba bëgg a dee nga yaakaar ne fat sàcc àdduna bette na ma bareer naa yi sama yaaya boo yi ñëwal nga na ma ba reer naa yi sama yaaya booy ñëwal nga gindi maay mënoon naa di xool mbaa may fekkee lu demewul nii soo xoolee yaay booy sonu naay yaay àdduna bette na maay ba reer naa yi sama yaaye booy ñëwal nga gindi maay boo ñëwal du baax man ñëw naa semaine passée ok yaa ngi si jàmm bu baax bu baax li yokk tax sama ñëw yow ci nga bokk man mii ah yow kay fu mu toll nii yàlla may na la xéwal allah yaa ngi ak say kër yu bari ak say oto looy xàpp takk jabar takk jabar dëgg la mais man gisuma ko ma doy yow xalé jigen Sénégal yaangi ni jek ma sha allah nga ne gisagoo ko bëgg tak loolu yëpp dëgg la mais jabar dañ koy tan yow ñaanal ma rek. insha allah dina la ñaar bu loolu nga bëgg dina la ñaar am ben problème. wa sama turundo moom anam. sa turundo ma nga fa. dox indaale woko ko. indaale moko fenn bu yàgg. <laughs> ma dal yeen dëgg-dëgg jaaxal ngeen mu quoi yeen seen jukuy tubab ji di ngeen ko bàyyi. Ah, neuf mois nga feral gone ah waaw tam. <laughs> lu moo tax indaale wu ko ma ko. ma na bàyyi mais instant xam naa nag su ma jógul dugg ci waañ bee dara du tàkk xam nga jóg defaral loolu la lekk instant yi xam naa ne soxla ma ko. kon baax na. lay xaar. Ibrahima. Ah, bi nga may wax ñu dugg ci tabax bi de amoon naa ci xel ñaar waaye xam naa ni ñu dugg fii moo ëpp sutura foofu ñuy dem feneen ñu ñuy xamal. waaw yaay fu waay nekk rek yàlla nga fa. te comme que sama papa tëj nañu ba xamante wuñu ak kenn dëkkandoo lii moo gën fii ak ñetti fan ñu lijjanti paas comme que nee nga jigéen ñu dellu foofu suñuy mbokk loolu daal mooy solution bi. yàlla baax soo ba léegi maa ngi lay xalaat foo nekkoon. yaay daal damaa xëyoon dem di wuti ji liggéey. liggéey. waaw bi ma doxee nag ba fee am na benn restaurant bu ma fa gis mm. ma waxtaan ak moom mais mu ne ma am na jànk waaye nag expliqué naa ko suñu situation yëpp ndax ndaw si daf maa baax sax moo ma jox li léegi nee na bu ma xëyee naa ñëw moom dina ñuy jox lekk yàlla la <laughs> ay jooy jooy ma de xëy la li bu

léegi daal xam nga li am man ñëpp si naa ci kër gi sama yére ranger leen ma ko sa batan lii nag kayitu kër gi la dencal ma ko. tabara yow na fi man war naa la fu nekk nafi fi waaw man tamit boobu ba léegi maa ngi toog fi parce que ñemewumaa dugg seen kër pour xaar nga génn na seen kër laa dem fekkuma la fa foo nekk tawara sam papa daf ñoo génne génne na fi sa yaay moo ñëw suñu kër mu ne man maa sàcc montre oram ante tabara tooñ nga ma tabara bi nga xamee ni moom moo montre bi roomu ko woon a jox ba lii lépp di ci am ay Nafi Nafi damaa xër ci yow rek Nafi moo tax ma sàcc sama montre yaay jox la ko pour nga jaay ko Nafi fan ngeen dëkk tabara xam nga ni ñun bu ñu luyee amuñu luñ ko fayee ndax montre bi bi ma demee fayuñu ma ci lu bari ordonnance yi sax matul yaakaar ni teug bi daf ma nax moo ci tabax lañu dëkk léegi tabax na fi non <laughs> tawara jubal tawara sànq ba tey maa ngi lay jàmmal mais suba bi dara na bu baax waaw Amina Amina kaa indi ko bool bi jox ko bool bi. yaa ngi dem dalal jàmm waay. Mbacco xale bu jigéen bii gis naa ko fi ñaari yoon mu fi jël lekk moom fan la dëkk. jigéen su ma juumul fii si koñ bi la nag. moom exactement lan mooy problème bi. Omar dafa xaw ma lan mooy problème mais ko am jom la. su ngoonee bu ma ko palaatu man femme bi xaw mais dama am ci moom yërmaane trop daal. loolu la c'est la vie ah. problème yi muy jooy nii pour lan la ah ba nga fekk ma fi ci salle bi di ma déranger. ay ma est que du compte bi nga tëj lay jooy. compte bi ma tëj loolu kay bu dee loolu suba su ma xëyee tëj ji jar na jooy yu rëy yi ah. maa bul sama compte soxlawu ma nga tëjji sama compte ndax tey ñoom na fi lee leen dal yaa leen ko teg. ñoom na fi lan moo leen dal. seen papa daleen a génne kër gi à cause de toi génneegu leen sax day wàcc ndax Nafi sàcc la. sàcc waaw. Nafi du benn sàcc sa sàcc nga bëgg a xam ma. waaw man mii may sa sàcc. kan mooy sama sàcc yow ah kan sama sàcc yow yow yaa ma bett yow yaa bon ah yow doo nitu dara ah? yow imbécile. Yo, eh bu ma ne ma ma musoo ma yab te ki du tax nga yab yo dina ko lijeenté yow ci biir kër gi ëmbi sil bi ma wa mais soxna ci yow ma ngi lay klaxon rek xana dégguloo ma. grand ma du ma klaxon. ok mais yak sa ben sœur ben ngeen da ngeen di niro trop trop trop trop. ah. mais est que mën naa xam fi nga dëkk. fi ma dëkk moom. pour nga doyee ko lan. non bëgg laa xam rek ndax ñu ngi niroog sama sœur. non mënumaa xamante ak yow ah, grand dama yàkkamti de. kii vingt cinq mille la man maa la ko may. nga may ma vingt cinq mille pour lan fan laa la demal ak lan laa la defal.

ma dajeeg benn grand mu ni damaa nduroo ak rakkam mu may ma vingt cinq mille yi léegi teeru dix mille quinze mille comme Ibrahima fan yëpp jàngiwul ma jox ko mu dem fay école